الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن نعم نيو نوي مبوك زيار دي نيان سبحانه وتعالى مو ديفال نيو يوتا ديفال لين كو سبحانه وتعالى مدف ديف بيب كادوري بو نييكتي مو لو سيل دي ووت ngeureumam aujourd'hui nak liko taxaju ko introduction la ci ben silsila bo ci tontu ay saafiqa yoo xam ne yàlla daf ñu leen a nattool sunu jamono ji rawatina nag waa Sénégal Cissé bi nag da cee jël di tontu benn saafuq ci ñoom boo xam ne daf yàlla dafa def mu melokaanoo euh, dëgër fit ñi may yàlla mën a weddi loo xam ne moom ci boppam xam ne ne sax na euh, nekk nag koo xam ne fan yi dañ koo xamee ñàkk teggin ak ñàkkuk yar jëmale ci boroom xam-xam yi boroom xam yi sunna yi tont bi nag ni muy demee mooy ba jiitu euh, ci audio bi nga xam teg na ci loxo muy audio bi dix minutes vingt secondes nga xam ne mënoon na koo def ci une minute vingt secondes ndaxte audio bi dara nekku ca comme ni yeneen audio yi mu wàcc yépp tus nekku ca la ca nekk rek mooy wax ju bari ak ñàkk teggin ak euh, xamadi ak eh, dëgër fit ak ñime yàlla audio bi nga xam ne kon mu ci nañu tontu bi ci jiitu mooy audio bi audio bi dix minutes vingt la nga ne te ma ne mën na ko def ci une nekk lépp mën nañ ko résumé mooy day yeddi ne waxdatul wujud ak ittihaad ak alxulul loolu nekkul lu ñu fekk te saw wala suñ ko ci fekkee lu tuuti la kon ku leen ko waxal na leen sosal eh, mi ngi laaj ñu wax ko yan boroomi xam-xam ci wa tasawuf ñu ëpp ñeent wala juróom wala ñaar wala ñett yu saxal lool dinañ ko ci indil su ko neexee mu jox ñu mu jox ñu lim mën nañ ko ci indil vingt ba téeméer wala su fekkee sax su bëggee ëpp loolu ñu indil ko ci benn par benn seeni wax seeni téere ñu saxal benn ci pas-pas yooyu bal dinañ ko indil loolu na mu saxee ci nga xam ne ci turuqu tasawuf nañ ko tàmmal yi nga xam ne ñoo gën a fës ci turuqu suuf yeey nañu saxalee wahdatul wujud wala al ittihaad wala al xulu daal di koy gëm tas ko ci seen seeni bi gën a insiste na nag ci nga xam ne mooy tariqa bi nga xam ne moom ca la bokk mooy tariqatu tijaniya dinañ wane tamit ñime yàlla gim ñime yàlla di tuddi téere yoo xam ne day mën ni ne moom da ko liiroo da koo xam fekk ne xamul sañu ko bind ndaxte da koy jël jëlee téere sàngam daal di koy askane diw sàngam waaye tamit euh, talbis gi muy def mel ni téere yooyu mooy téere yi ñu bind wala boog mooy téere référence yi nga xam ne ñoo ñëw ci euh, dal ca tasawuf te mooy téere yi ñu mujjee bind ñooy téere ya ca gën a ndaw bal dinañ ko indi téere yi nga xam ne bind nañ ko borom xam-xamul islaam yi bind nañ ko ngir daal di mabbal pas-pas bi nga xam ne mooy wahdatul wujud wal ittihaad wal xulul te duñ ko fekk fenn ginnaaw ci yeneen kuréel yi nga xam ne kuréel yu nekkul ci lislaam la dootu ci kuréelu tasawuf dinañ ko indil tamit ci lañuy mujjee mooy te nag nañ ko mbébéte def te loolu mooy dina bokk ci silsila bi mooy nag daal di koy indil ay poñ yoo xam ne ma nga nekk ca jawahirul maani yi nga xam ne mooy téere ba nga xam ne moom mooy seen bible ñoom te la dellu lañu pas yépp foofooy baas ba foofooy asl ba ñu indil ko ci téeméeri ñombe yoo xam ne basé wut ci lenn lu dul sosal yàlla sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam basé wul ci lenn su dul kàcc yu tooy xepp loolu dinañ permettre fekkee ne moom kon fan yëpp bi woote nee na yaay dafay dénoncer sos dafay dénoncer loo xam ne du dëgg di ko askaneel waa ahlu sunna di ko askaneel boroom xam ahlu sunna te ñu dañ ba set wecc ci loolu su fekkee ne kon moom looloo ko déranger dinañu wax kon naka la def ba bokk ci tariqa bu mel nii bi nga xam ne la koy cislaay la base ba fondement ba mooy sos yi kase mooy kàcc yi kese waxuma sax mu mbir ba daal yi mu wax ñun fan lañ koy fekk ci alxuraan sunna da duñ waaye ñu wax ñu nan lay def ba jénn mbir yii ni xam nañ ko ko indil cay kàcc ak cay sos bi nga xam ne moom lay moom lay dénoncé euh, dañ koy yëgal rek ne koo xam ne dangaa dëkk ci ab kër goo xam ne kër yi weer kese la ngalawaay na nga moytu jili xeer di ko sànni keneen ndax fu ñu fayoo rek di nga sa awra dina feeñ fu ñu fayoo di nga xëy dootoo am foo dëkk dootoo am kër euh, kon nag fi ñu koy xaare ñun nag du nekk tut ci nag xam naa ne moom du sañ a tawa fii nag suñ ko indilee yooyu ba pare mu taxaw di ñu wax euh, la Abdul Wadud waxoon nag la diw sàngam waxoon waaye xam naa ne ñu koy laaj mooy suñ ko indilee wax yooyu pare mu toppat ci benn par benn daal di koy jéem a génne ci ay kàcc daal di koy jéem a génne ci ay ay sos waaye su fekkee ne moom sos ak kàcc da koy déranger ah, moo xam ne ci la nuuru woon ci la pas-pasam nekkoon mu jënd ba set wecc daal di toppat téere boobu daal di koy ah, daal di laaj ñu ko ñu koy jàngale ak ñu ko gëm laaj leen di ay tontu laaj leen di firnde laaj leen ni kii fi mu li mu waxee fii nii fan la ko jëlee. Euh, ngir ñu mën a xam ne moom ku dëgg woon na sinon rek nañu xam ne kon waa ji de loolu la ñu njott ci moom nag mooy ne nekkut dëgg ko yitteel nekkut ne wane ay soso ko yitteel waaye màbb li nga xam ne mooy dëggub yàlla ji subhaanahu wa taala màbb li nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yitteel accusé ñoo xam ne ñoo set wecc ci ay kàcc ci fen mu accusé leen fekk na mu nga nëbb ñoom ñoo xam ne suñu doon def concours ku dàq kàcc ku dàq fen ku dàq ko sos ci diine yàlla ji yàlla xam ne ne su fekkee ne am na ku leen rawit lim leen rawee du du bari euh, kon nañu mel fii li nga xam ne mooy introduction bi euh, daal di ci doog a toftale audio par audio ci tontu audio bi nga mooy durée dix minutes.